dañu lal les les prétextes d'un putsch d'un coup d'état constitutionnel c'est tout c'est pas autre chose ce ne sont que des tout le monde reconnaît aujourd'hui que crise institutionnelle amul ci réew amul benn crise institutionnelle crise institutionnelle mooy dañ dem ba ñaari institution bloqué diggante pouvoir exécutif ak pouvoir législatif bloqué ana blocage blocage amu fi assemblée nationale la ñu génn ay président ngi def ay décret justice nga nga ay décision interaction institutionnelle encore une fois mu diggante assemblée ak justice mais ñi eh, bon dañuy exagérer ñi invoquer l'article 52 même le président euh, n'y a pas fait référence euh, mais on invoque l'article 42 le président de la République et le garant du bon fonctionnement euh, des, des des des institutions la moo acte ne institution fonctionné wul ana ana foo moi je pose la question dañu ko war à neuf institutions yi fonctionné wu cinquante deux sañu day foofu la foofu la ñu laloon parce que boo liiree les motifs de la demande de la commission d'enquête le, le PDS a visé l'article 52 exactement mais c'était trop gros c'était trop moo tax président sañul wax 52 mu dem ci 42 garant de la je d'accord ce qu'il a fait c'est le contraire parce qu'aujourd'hui décision bi mu jël moom mooy indi moom moo moo def blocage parce que moom moo arrêté processus électoral moom moom mu moo nekk facteur de blocage donc quarante-deux boobu du base pour li mu def parce que li mu def tegu ko fen li tax tegu ko fenn amul dara lu may président la république amul dara lu may assemblée nationale ñu reporter suñu élection te nag loolu c'est c'est c'est amul discussion amul benn base Il n'y a base légale qui le permet. Alors, venons euh, report de l'élection. Ñoom, les députés, euh, au, ils ont visé l'article 31 euh, de la Constitution euh, qui fixe les termes de la tenue de l'élection présidentielle. L'article 31 mu ne le scrutin pour l'élection du président de la République a jours au plus et 30 jours au moins avant la date d'expiration du de la République en fonction. Euh, donc le scrutin, le, le scrutin devait se tenir le 25 février. Cette proposition de loi, euh, l'article 31 bi ñu laal moom moo reporté l'élection euh, ñoom euh, ils ont ils avaient demandé dans premier temps un de six mois. L'élection devait se en août. Ensuite, il y a eu un amendement. Euh, ils ont fixé la date de l'élection au 15 vingt-quatre euh, procédure bu ñu utiliser yow en tant que juriste pour reporter l'élection euh, proroger euh, le mandat euh, du du président de la République mu nekk une prorogation euh, conjoncturelle ponctuelle est-ce que la procédure elle est légale ou antidémocratique elle elle est illégale bu ñu mën a wax lu ëpp c'est-à-dire dañu ne def article 31 ñoom bi ñu proposé mooy def ils ont fait une loi constitutionnelle pour déroger à l'article 31 mooy article 31 mooy li nga wax léegi dañu ne élection bi war na am li ëpp quarante euh, kii euh, cinq jours li yées jours avant la fin du mandat, mandat du président loolu mooy règle constitutionnelle parce que règle constitutionnelle c'est général et ñoom ñu génn kayit ne dañu def article pour déroger maanaam pour bañ a appliquer article boobu daan ne élection bi dinañ ko tenir le 15 décembre loolu seen décision ba amul base. amul aucune base juridique ni légale amul aucune base aucune base on réforme bu ñu réformer constitution. disposition bi si nekk kenn dootu ko laal mais quand kenn musul gis disposition constitutionnelle bu am date bu ñu ne dañu war a élection bi se tiendra à bu loolu passé euh, disposition fu mu jëm les dispositions constitutionnelles c'est du béton kenn musul gis fenn ñu ne dérogation l'élection se tiendra en décembre dans une disposition constitutionnelle disposition constitutionnelle li tax mu li la ko woon mooy délai boobu ñu ne trente quarante cinq ou trente jours xam nga amul date dañ ne quarante cinq trente jour donc c'est applicable en permanance le vingt le quinze décembre euh, deux mille vingt quatre ce n'est pas applicable en permanence loolu mu nekk. nee nañ c'est une disposition conjoncturelle. mais mënul loolu amul ci constitution amul ci constitution constitution amul disposition conjoncturelle en droit li nga xam mooy disposition. disposition euh, bi ak disposition transitoire disposition conjoncturelle man damaa ngi koy soog a dégg avocat depuis quarante ans maa ngi disposition conjoncturelle c'est un putsch c'est un coup d'état constitutionnel foqati la loo xam ne yoon mayu la ko nga sukk ngay nga nga nga koy taafante yoon parce la